yow foo jëm yow yow bu naan tuubaa ngi nii wuy sama ndey ma ngay dégagé ma ngay charme xale ba ma ngay charme xale ba mais mag yi da ngaa féroce de mag da ngaa bëri tiital wuy sama ndey la ilaha illallah nuy na Tapha Touré Omaro ñu noonu Omaro jom mi nga ne la la la musuma gis Omaro tamaate loxoti loxoti ko jeexal de waaw waaw wuy loolu Omaro e da nga nuyu Omaro ka tànk lay nuyu non mais mag yaa fi ne non mais mag yaa fi ne la ilaha illallah mag yaa ngi sirtu nag mag ja dangay fecc eh mag jaa ngay cooncu ay mag <laughs> ma jaaju l'école nationale sama ma sama xel soldat joojol maaj colonel baa ngi doog a ñëw soldat joojol maaj colonel baa ngi eh dama toog ne <laughs> mag ji kaay ñëwal maay arbitre repos waaw damay toog foofu wala ma toog ci digg bi yow toogoo ci digg bi dagg ko fii. yow loo def noonu la. Ah, farankulaay waaw dagg ko foofu dagg ko foofu farankulaay mais mag gi mais mag gi li nga sañ beneen dimension la. Mhm. non man gis lii. mais mag gi li mu sañ laa bëgg nga présenté ñu ko lan la mag gi sañ mais est sa bopp. mag am non mais mag gi loo présent loo sañ sa gi dama bëgg nga wax sénégalais li nga sañ sa. acca waxal réew mépp nga lay déglu mag gi waxal. salaamaaleykum. waaw euh, maa ngi nuy àdduna. di nuyu ñëpp képp kuy fan su ji. Mm-hmm. Euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. di gërëm samay ñaari waajur. Mm-hmm. Euh, tey ma lay wax Omaro sañse bi. li ma sol ci kaw. mooy feutre. feutre waaw. si defe naa nag feutre xëy na ñun bi ñuy wax feutre sax juddu wuñu mais jamono di dox ñu naan felt. mais li ma sol ci kaw feutre la. fëtt kii suñu ñoom maamaati maamaati maam ñoom Senghor. Mm-hmm. ñoom euh, Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ñëw ci verre yi. nga yi. mooy Sila Mor. i waaw. ñoom bu musaan sol feutre. verre yi Sila Mor lañ ciy teg. def costard. def manteau. def seen soulier yu baax. waaw ma ñëw defal la benn chemise rek. waaw multicolore. Mm-hmm. mais mm-hmm. Mm-hmm. seen yi lan la lii kii samay biling biling la waaw ak fansi yi ndeysaan. fan si jara ak bin waaw yëpp a ngi ci daal. Ah. yow am loo wax rek noonu parce que ay connaisseur rek a fi toog Papa Ndiaye ngi ne. mag gi loo def ci tubéy ak daal mu jeex. waaw ma def kaki. waaw kaki waaw rouge bordeaux. daal li nga def lan ak kawas yi. marié ko ak feutre bi ci kaw. feutre bi waaw. connaisseur nga. solo lañ ngay def. loola dama lay seetaan.